Serigne Moustapha ngi nii toog ndax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sèye ngi toog ak Serigne Babacar Sy kon ñoom ñoo moom ci ñun li ñu ci amoon mooy wax ca jumaa ja ku mu ameel bor nga ñëw ci ñun koo xam ne nag yow yaa ko ameel baal nañ na lam la ameel loolu moo ci doon suñu kàddu li ci des nag kàddu kilifa yi la ndax néew bi سري مصطفى سيمو كوم تي بير موكو موم تي بيتي سري شيخ احمد تيجان سيمو عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ولكن يجب ان يكون هناك افضل te kon ci ñoom la gën a jaadu ñu jël kàddu wax nit ñi waaye li ñu jottali yóbbante rek ndax sax góor gi moom mi wax ni daf ko xaw a yéex a yëg moo tax mu woo ñu man ak mam Babacar boole ñoog suñu mag yi ñu àndal pour ñu représenté ko jottali ko kàddoom ak njaalam dafa am lu ñu mës a jàngal te mooy bi muy jàngale bu àdduna tukkee ba pare ba li ci war a am yëpp am ba muy jàngale cercle boobu ñu ne foofu lañuy ñuy rendee dee ma toog ci moom ñu siy waxtaan mu ne foofu dégg la laaj ndax yàlla xamul dee yàlla du rey ndax voyage rek la waaye nit ci ñàkk xamam moo yaakaar ni fa la mbiri di moo tax lu jar bàyyi xel la niñ ko waxee yàlla rek moo sañ jël ñi nga am ba pare ne la ko mm-hmm. ndax xam na ni fi mu yóbbu moo gën fi mu jëlee

li ma wax ca buntu jàkk ja fa ñu doon tax ñaanale buur ji yàlla moo dogal lu alaaji Malick Sarr moom Seydil Hadji Malick a ko moom ca ñii toog ñooy Seydil Hadji Malick kon ni ko sëñ Cheikh waxe bon ñu ngi nii toog mooy ci làmb mooy Seydil Hadji Malick kon njabootu alaaji Malick Sarr bu ñu xewlee que Seydil Hadji Malick ñëw sant bi ñëw rek sagal leen ci kanamu njabootu Seydil Hadji Malick mooy suñu kàddu comme ni ko Serigne Cheikh waxe ndax bi ko Serigne Habib yégee ci suba teel la xool diggam ak góor gi ak cofeelu góor ci njabootu Seydil Hadji Malick ci njabootu Serigne Babacar ci njabootu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si rawatina ci euh, Serigne Moustapha Sy bu Cheikh Ahmed Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy ba mu tasiin wala mu sadidaat diggam ak góor gi la koy firi mooy diggante Cheikh Tidiane mii ak Serigne Moustapha ak diggante njabootu góor gi ak Serigne Moustapha mooy firi diggante góor gi ak Serigne Moustapha kon ñu ngi ñaan pas-pas boobu yàlla ko fi yàlla saxal yàlla na yàgg lool ci yàlla bu ci seytaane am yoon Serigne Moustapha yàlla sàmmal ñu ko ni mu taxawoo woon góor gi di wéttali góor gi góor gi di ko wéttali ko ba jataay bi am rafete bi fa tabarakallahu ñu ngi koy sant di ko gërëm ah mu mel ni nag li ma wax sànq ci buntu jàkka ja waxoon ko ca Dakar ga mooy Serigne Habib bu ñëwee Serigne Moustapha ñëw na bu xa ñoom maam Cheikh ñëwee ak maam Babacar ñëwee ñu tasee Serigne Habib ñu teew ci bisu Serigne Ama Si Sarr xaw ma kan waaye Serigne Cheikh bëgg na njaboot bi ci biir bëgg na njaboot bi ci dëkk bi bëgg nañ. Maktoum Business pour vous satisfaire. Sur commerces, et import sports, sérigraphie, décoration, flocage, t casquette, casquettes, panneaux publicitaires, gadgets, enseignes lumineuses. Adresse Marseillor 77 143 86 98.